compris euh, li mu doxal ci mois yu mujj yi yaa ngi koy wax sànq assemblée se sont entendus avec Macky Sall pour def li ñu def un mois après ñu bàyyi fa candidat Macky Sall dem jàppale euh, candidat opposition bi euh, qui est le grand perdant dans dans dans cette affaire Amadou Ba lay doon naturellement mais comment comprendre ce jeu du du PDS. waaw xam nga bon le PDS ni muy doxee peut que PDS moo moo doxatul depuis 2019 Mamadou Awa dernier comité directeur du parti démocratique sénégalais remonte il faut que ñu def euh, un retour en arrière que parti démocratique sénégalais après les problèmes de Karim Wade parti démocratique sénégalais dafa jëloon Karim def ko candidat am pour une bataille mm-hmm. loolu loolu la woon. mais du loo xam ne Karim daf ko liggéey war a mën a nekk ci dirigeant par euh, euh, parti bi. c'était un moyen de pression. en fait de pression la. bi ñu nee loolu ba ba loolu jeex na. le pré le président Wade muy continuer di exercer le secrétaire général depuis boobu ba léegi. mais ñëpp xam nañ que aujourd'hui que le président Wade quand même war a fonctionner. dinañ si ñëw. Mhm. kenn kenn gisatu ko. maintenant au niveau du parti démocratique sénégalais Karim nekk na suñu candidat en mhm. mais candidature boobu moo ko permettre par exemple mënoon jël yenn mesures mais mesures yu mu jël yëpp Karim moo ko jël. Mhm. parce que instance boo xam ne réunir ñu depuis boobu. y un secrétaire général national. y a des secrétaires généraux adjoints. te amul ordre. si le ordre mooy rek mooy le présidentiel moo war a di woote woote réunion muy daaw dañaa te booba léegi daaw aussi wootewul wala boog euh, initiative bi ci biti lay jógee mhm. Karim moo ko jël mun nañ ko nangu ne moo ko jël parce que moom moo doon le candidat du parti donc parti bi da doon fonctionner ci ci ni ci ni ko Karim bëggee mhm. mais taxul nag Karim moom mooy moom mooy le secrétaire général du parti taxul moom mooy le le premier secrétaire général parce que amul ordre mais justement au moment et ils ont dit que dañoo bàyyi yëpp euh, kilifa gu mag président Abdoulaye Wade on l'a même montré recevant Bassirou Diomaye Faye mais du fenn fu ñu ko déggee fu mu waxee que ne il apporte soutien à Diomaye am na sax ñoo xam ne ils foofu est du daa am lu fa xew loo xam ne sénégalais xamuñu ko Abdou lu bari loo xam ne sénégalais xamuñu ko parce que y a beaucoup de décisions avant loolu yoo xam ne parti bi jël nañ ko dañ ko doon toftale ne Abdoulaye moo ko jël mais xam nañ nekk jëlu ko Hmm. loolu moom lu lu leer la am na ay décisions yoo xam ne aussi y a le cachet Abdoulaye Wade mais pas sa signature. Mm-hmm. Mm-hmm. la mais mm-hmm. que tey aujourd'hui dama lay jox benn exemple rek ah bi ñuy euh, moo ko faloon personnellement. mais bi ñu koy do bi bi bi ñu koy domee parce que Tafsir dañ ko bëggoon àndal si loolu loo xam ne dafa ne moom la gis Abdoulaye Wade bu moo jël décision mu def ko mais su mais gisu ko su Abdoulaye Euh, du ko mën a gëm du ko mën a gëm. wala su wala soutenirul candidature Diomaye. voilà c'est ce explique effectivement mais defu ko après ñu mën a gisee le président Diomaye boo doon président candidat la woon. Mhm, ak ñeneen mën a gis Ablaye Wade mais Tafsir quand avec lu mu def yëpp ci parti parti bi mën a gis Ablaye Wade. donc Karim Wade aurait utilisé son père son image pour tromper Sénégalais yi. il a il a utilisé son père c'est c'est c'est c'est ça la vérité il a utilisé son père pour faire c'est ça la vérité ba pare ensuite aujourd'hui et aujourd'hui pour voir Abdoulaye Wade. Mhm. war nga mën jaar ci Karim Wade. doomam la. Mhm, c'est am na benn âge xam ne boo tolloo. yaa ko war a mën a sécuriser. Mhm. mais nag doo ko sécuriser pour utiliser ko pour pour tes parce que le parti démocratique sénégalais c'est un bien commun. c'est le parti de Abdoulaye Wade mais Abdoulaye Wade moomatu ko. te li ñu mën a nangul Abdoulaye Wade ñu ko nangul Karim duñ ko nangul Karim. mais mais nga baal ma Karim Wade aussi est-ce que tam li mu sañ-sañ bi mu am tey jii nii papaam moo ko joxoon dañ ciy toll parce que aussi ñu bëri jàpp nañ ne euh, seen génn PDS ak seen jafe-jafe euh, c'est venu d'un différend entre ñoom ak Karim Wade président Wade jël euh, parti jëm jëmale ci doomam. non papaam jox ko ko woon ay nit ñoo ko proposé woon papaam bàyyi mu jàll. ok voilà. il faudrait que ñooñu ko posé woon gëm nañu ñooñu aussi il le faisait de bonne foi. mooy li ma la wax léegi rek. Mm-hmm. pour Karim li mm-hmm. euh, nga xam ne c' de la démocratie li mu def bi yëpp icône la pour Sénégal icône la pour mm-hmm. ko. neexul les gens combat mënee pour Karim mënuñu ko mënee pour Abdoulaye Wade. mais faiblesse boobu nag la nit ñi ba nga xam ne def ci li def ci li ñu ci warul def voilà le problème et les gens disaient que nag Karim def lii nag Karim def jël Karim positionné ko mais Karim nag en retour bi affaire yooyu demee ba jeex moo waroon delloo nit ñi njëkk euh, seen njukkoon mhm. mais loolu aussi moom la deful léegi ce soutien du du PDS au au jomaay Diomaye mhm. nga ko apprécier bon euh, logique la ci li ma gis ni mu demee woon parce que bi ma gisee dans un premier temps que parti démocratique sénégalais ànd ak APR au niveau de l' assemblée nationale jéem a toxal élection yi loolu antugul Amadou ma nekk candidat ak candidat yi fi nekkoon yëpp bu ñu ma nekk Karim nee na wala Ablaye Wade nee na parce que Ablaye Wade newul góob ma loolu. Mhm. Euh, euh, ma gis aussi ce qui s'est passé au niveau euh, de Benno Bokk Yaakaar ak la candidature de Amadou Ba ni mu demee. Mhm. ak ni ñu ko sonalee je me pour pour xeex Amadou pour xeex pour xeex Amadou daf la kii mieux mhm. xam ne que ñoom ils sont en discussion. donc ça ñu xam ne ko initiative ko mais c'est passé beaucoup de choses entre ah euh, passé ah beneen aussi beneen aussi mooy mooy ni mooy Karim devait rendre compte aux militants du Parti démocratique sénégalais il rendre compte parce que les Sénégalais les militants du Parti démocratique ne pouvaient pas comprendre la candidature de Karim fi mu fi mu mujjee les qu'entendez-vous par devait rendre compte mais parce que Karim les Sénégalais ne peuvent pas comprendre que problème de nationalité bi parce que le problème de la nationalité de de Karim. Mm-hmm. ça donne raison encore à Abdoulaye ci ban point. bi koy xeex en waxoon na ne moom newul ci loolu. loolu mënul nekk. Mhm. te waxoon na ne Karim mënu ko remplacer dans la mesure où Karim n'est pas de nationalité exclusivement sénégalaise. Abdoulaye moo xoon loolu Abdoulaye waxoon na ko. ba pare Abdoulaye xamoon na ay taaru Karim xamoon na ay fu Karim baaxee ak fu Karim baaxul xamoon na aujourd'hui les points faibles de son fils. Mhm. et d'ailleurs en privé. yàgg na ko wax ne aujourd'hui boo bëgg nekk président de la Sénégal wala nga bëgg def politique il faut ngay defee nii. li ma li ma a li nga wax mooy on a fait un mauvais procès au président Wade. a fait en 2011 en pensant que dafa bëggoon na Karim Wade succédé ko. on a fait un alors qu'il avait réglé le nag moo ñu rattrapé tey. Mhm. mais loolu aussi Karim moo jëlul def aussi le problème on a on a rendu un mauvais service on lui a fait un préjugé qui était dafa. Mhm. boo xam ne Mettre son fils. Mettre son fils après lui. Abdoulaye Wade a dit dans un interview que Bush n'est pas plus intelligent que moi. <laughs> yaa koy fàttaliku. waaw. Eyadema euh, euh, n'est pas plus intelligent. et entre Eyadema Bush fils et Bush père am nañu am na ko dox ci diggante bi su bëggoon dawoo repassé ko mën na am benn bu mu utilisé. Mhm. donc donc donc Abdoulaye yàgg yàgg loolu. et ensuite yàgg na wax mhm. boobu ngay a problème la nationalité. Mhm. ci la donc loolu avertiroon na Karim que ce problème là moom waroon na ko mën a régler parce que c'est problème personnel. moo moo décidé woon. waaw léegi loolu bu demee loolu ba doog loolu dab ko tey mu yaaxal ko tey mais bu mu ko jiñ keneen mm-hmm. bu mu ko jiñ Amadou Ba bu ko jiñ magistrature bu mu ko jiñ Sonko bu mu ko jiñ kenn na ko jiñ boobam